asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes maa ngeen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte euh, janowaat ak yéen ci seen chaîne leader bile euh, di Equivox euh, TV tey nag ñu am gan gu mag honorable député Coura Macky tey nag moom la ñu fekk fi nga xamante ni rek moom mooy assemblée ci bureau am fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moom mooy actualité mu daal di ñu koy yombalal lool dañ koy bàyyi rek mu nuyoog internet yu ñuy seetaan ziar nañ la tata bu baax a baax. ah Fatma di la delloo ziar. di la ñaanal jàmm di la wax ni damay kontaan toujours boo may jël ndax eh, dama bëgg xale buy liggéey te dama gis seen eh, équipe bi équipe Vox ngeen di di ma topp nag eh, defe naa ni yéen dañ leen war di jàppale ndax yàqu leen yéen a ngi jéem kon xale yi nekk ci siit yi te dëggu dañ leen di war di jàppale di nuyu nag sénégalais yépp nag di ñaan yàlla sunu borom bi nga xamante ne ni mooy may jàmmam réew yàlla na ko may Sénégal ndax bokk na ci dëkk yoo xamante ne ni tànk jógewoo fi dugg biir Afrique waxuma Europe waxuma Asie waxuma Amérique nga dugg biir Afrique yow doo xam lan mooy njëriñu Sénégal yaa ngi dégg euh, mu nekk dëkk bu ñu ràññee nag di wax ni senegaal yàlla na bokk ci dëkk yi gën a ñoŋ te yàlla yokk sunu xel yi euh, wasaare fi jàmm ndax dañoo ay kilifa diine yu aada ñoom it dañ leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi euh, bàyyi leen sunu kanam ndax am na ñu leen di déglu nag te respecté leen lool di ci jiital sëriñ kër Si mu Alaaji Malik ma ni ma ni mooy sama sëriñ ma ni sëriñ Babacar du jóg ci senegal di ñaanal nag ki ñànk réew mi yàlla moo jël senegal ñu dëgër bopp mu ne président Macky Sall yow wóolu naa la ci du ko jox kenn ku ci ne golo gu jot nag ak kaña yi ñu ngi laaj réew mi mais président yàlla da koy tànn parce que dina xool sa qualité moom danga naan dama bëgg a nekk njiitum réewu Sénégal déedéet sénégalais yi dofatuñu li fi xew nii paase li fi xew nii paase dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk jàngat ci réew mi te président Macky Sall da ko attan réagirul benn yoon jëmale ko ci ñun bu dul seef ñu yal na yàlla yokk fanam président Macky Sall yal na dund ndax dundam am na njëriñ di ko wax ne nag ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale mooy jàppale suñu bopp jàppale senegal di ko wax ni Amadou Ba mii mënu jox man day kura Macky man man xam naa ni Amadou Ba kuy jëriñ réew mi la man xam naa ko joxuma ma lekk joxuma ma naan Amadou Ba jabaramay sama xarit dama koy wax ñëpp di ko dégg du sama xarit moom euh, li may wax dëgg rek laay wax wóolu naa ko du li ma ko Macky Sall sexal maa ko njëkk yuuxu ci groupe député yi ne leen Sénégal ñoo ma koy laaj mm-hmm. fu ma dem ñu ne ma su président Macky Sall tegul Amadou Ba di ngeen am problème mm-hmm. te man waxuma ni kenn bëggul Sénégal mais boo parewul bu laaj suñu réew mi dañu ñàkkal fayda Sénégal ñu am dignité fi ne ñu judd ñu am teraanga mm-hmm. ay boromi xale ki bokk ñoo xale yu ndaw yi di fo bu ñu nax surtout ñu nekk nag ci nguuru Macky Sall bi loolu laay nuyoogum ba ci kanam ñu xuus. kon looy euh, yu bari ci réew waaw candidat la mm. man mënuma ànd ak yow ay at fukki at ak ñaar mm. nee naa leen président Macky Sall dafa am xalaatam dem wuti xaalis mm. ñëw jox ko ay ministre am ministre yi ñoo liggéey senegaal mm-hmm. Macky Sall xar kanamu Sénégal gi mu soppi dafa ñëw jox la. jox ma ni ma Coura Macky yow tey yaa yor euh, euh, euh, tali bi mm-hmm. ilaa Touba yaa ma koy defaral tali bi jëm ba Ndar jàlli Podor fu ne mu dem fa tàlli yow yaa ko yor mm-hmm. mais kooku mu ko jox bu ko defaruloon du mel ni. waaw parce que mu ngi naan ministre yi jege askan bi. dëgg jege askan bi bokkul ak liggéey bi ma bëgg askan bi teg ci seen bët mm-hmm. daanaka sax. Euh, am na ñu leen di contre mais man bokk naa ci ñi contre genn wàllu ministre yi man Coura ki ndax man ndax buñ leen woowee doo leen jot du doo askan bi ba ci député yi mhm. loolu président Macky Sall moo ko gën a bañ mais de fois mhm. man damay understand doomu aadama man dama naan est-ce que gis na sama woote est-ce que gis na sama message man est-ce que fekkul mu biisi munuma woo dinaa try tryaat su ma defee ñetti yoon nag wuyoo ma ma ne xëy na kii daf ma bëggut a wuyu naa ko bàyyi mm-hmm. mais liggéey nañ liy soppeeku yëpp ñoom la ma ki jox mm-hmm. alal ji ñu liggéey ko mooy budget yi su ma gisee opposition bi di ko bañ a voté daf may naqari mm-hmm. ba ma leen di woowee waa Burkina Faso bokk leen senegal ndax bu ñu génnee alal pour nappkat yi baykat yi sàmm bi askan bi jàngu xale yi lépp loo xam ni Sénégal da koy dundee ñu ne dañ koy voté nga bañ mm-hmm. man boolewuma la ci sénégalais da ngay nekk noonu Sénégal pour man mm-hmm. euh, il faut ñu xoolaat sunu toogaay bañ xool mm-hmm. ah diw def na lii tey man lii laay def déedéet yow bëgg gi nga bëgg Sénégal patriote dëgg du waa ex Pastef fii nañu bàyyi wooyu seen bopp patriote patriote du yàq patriote day xeex pour askanam la Martin Luther King waxoon dafa ni boo xoolee sa der bi mu ñuul rek boo yeboo amal dignité ci sa bopp mën nañu sàcc lépp ci yow mais sa dignité yow kenn mënu ko jël ci yow moo tax dama judd ne man duma dox man kura man kure njaay duma dox ci takkandeeru benn doomu aadama I know how to do it I know how to do it xam naa ni ñu koy defee mooy xam naa ni ñuy daanee sama suñ sama doole man man bu ma bu ma góor mayee ki ma sëyal a ngi fii Jibi Fay daf ma daan wax ni ma dinaa la wax lii yonent bi doon wax Kadija ma ne ko lu mu ko doon wax mënu ma su bëccëgee nga doon jëkkër bu guddee rek nga doon jabar dama tàmm def ndax dama juddu fekk sama yaay pauvre mm-hmm. yor juróom-ñeenti doom liy dal ñëpp dal ko ñàkk ma juddu gis ni muy sonnee ma ne dama koy faj di ko ñaan yàlla nag merew ma kenn bu mu saan taw suñu kër ndox mi fii la ñuy yem ma waxaat ko sénégalais yi pajaas du matelas pajaas yi di féey dañ koy weer ay fan ma bañ ci sama xol di ko wax yàlla dama bëgg dimbali sama yaay duma ma wax nag dama koy dimbale di jaar ci ay géej pour dee non <laughs> dama koy dimbali yàlla may ma ma gudd fan wér ba jëndal sama yaay kër yóbbu ko màkk loolu laa ko doon te am naa ko merew ma kenn saagaw ma kenn góorgóorlu di fecc ay bale quatre-vingt-cinq lañ ma fay cent mille ma nekk xale bu ndaw ñi may doon liggéeyal ñi ngi may dégg ñoo daan yóbbu sama salaire ci sama yaay ndax dama doonoon xale lool enveloppe ba ku ñuy wax njabu njaay ma nga palma dama yor ana caam mi ngi fii nii ñoom ñooñu ñoo doon yóbbu sama salaire ci sama yaay musuma ko daj bu ma joxee sax ma ni ko déedéet yaay defaral rek man dinaa am ndax bu ñu joué jee dañuy may ket man dinaa jënd yére boo bëggee sa waajur noonu ngay def Sénégal gi ñun ñëpp ko bokk. kon tey boo gisee xale yi nga xamante ni dañuy yuuxu naan. dañoo bëgg a teral seen yaay dañoo bëgg a ba mu jaral leen seen bakkan dugg ci gaal gi ba ci papito kara bi mafia kàcc kàcc. Mhm. ñàkk bakkanam ci lu mel noonu tey li ngay dama koy ñaanal yàlla sunu borom bi ak xale yi ñàkk seen bakkan yëpp yàlla yërëm leen. dégg naa Akhenaton di ko ñaan yàlla waa ex Pastef mhm. ba gouverneur bi gaañoo fii nii ci Almadi mhm. dañ ko doon ñaan yàlla tam. Euh, <laughs> mu doon lu ma jaaxal nag nag nag euh, Ousmane Sonko balaa maa tontu ci loolu dafa yee iñaanu Sénégal yenn Sénégalais yi. Sénégalais soxoroon na mais da ko doon nëbb da doon maslaa ñun dañu xamoon maslaa boo bëggul nit sax da maslaa ak moom mais léegi boo bëggul nit di nga fexe noo ko weeree ba àddina bépp di ko seetaan gàcceel ko xale yi di dem ci géej gi gëmuma ni dañu bëgg dimbali seen yaay. man ma Macky maa ko wax ku bëgg a dimbali sa yaay doo bëgg a bàyyi sa yaay mu torox ci sa ginnaaw yow yaa ngi gis sa yaay di torox nga ni dama ko bëgg a dimbale jël trois cent mille fay ko doomu aadama gis naa ko commencé vingt mille francs doon multimilliardaire tey mi ngi Touba gi moom a ko nettali vingt mille mu ne ba may jóge Touba astafirullah mu ne sama yaay moom a jox douze mille ma paasee téeméer ba dem Dakar yegg jël mil cinq cent yi denc jël dix yi jënd marchandise huit mil def bitigu mbagg di wër mille francs yi may cotiser weer bu nekk téeméer luwaas moo ma def tey kura multimilliardaire soo bëggee dimbali sa waajur bul joxe kii boo ko bàyyee sa ginnaaw day gën a metti ci moom foo ko jëmee naqar bi muy boole nga dee jën yi lekk la nga ni góor yàlla la eh yëf du góor yàlla. kon ñi dal ci kaw état bi nag naan ñoom ñoo responsable. état lii deux mille ba fi ab Ablaye Wade nekkee deux mille deux deux euh, euh, euh, trois mhm. ci la xale yi commencé di rakkaaju di dem ci géej gi du Sénégal rek de mhm. monde entier bi dëkk yu pauvre Afrique yëpp ñi ngi def comme Sénégal Sénégal la dafa rëy làmmiñ ñu war a dalal xale yi leen yéen ngi dem fu doy quarante cinq ans laa immigré wërsëg nag yàlla moo ko yor man naa fa def quarante cinq ans nga ñëw tey yàlla may la lu ma mayut mais ci jamono bi ñu toll yàlla nii la def di seetaan doomu sénégalais yi mu may mbaax may leen lu kenn amul kilifa la sénégalais am mooy suñu jamaa kilifa ñu dañ ko am am na lu may war a wax sama kilifa ne ma bu ko wax mm-hmm. damay noppi du ma ko wax amu tubaab amu ko ñàkk amu ko mm-hmm. lu leen neex wax ñu am loolu ba pare ba ko fi ak lii ñëw Sénégal naka ngay fayee trois cent di dem di dee mais ndax lii jàmm la ndax lii nag jàmm la ci suma réew mi deful dara su ma demee ci napp mi <laughs> nañ ne l'homme douze métiers ak femme douze métiers maa ngi Amérique nee naa leen damay dawal taxi Uber yi dama koy dawal damay létt damay jaay dàllu ngaay yeeg yére yi nii damay fecc ba léegi barki ras fecc mi banaa ko mais ba nii ma nekkee député non bu may ñibbi Petersen laay dem jënd carax yi ñag yi laa koy jaay maa ngi koy jënde mille deux mille deux cent bu ma demee jaayee ko quarante cinq cinquante dollar sama alal yokk léeg ma toog nelaw yeewu jël sama oto bi taal sama app mm-hmm. dem yokki xaalis xamuma benn liggéey te doot duma ko mës a def ba may sàngoo suuf sénégalais yi góor góorgóorlu di jigéen di góor te dama gis nag Sénégal jigéen ñi am nañ jom maa fii sama téléphone bi damay sant yàlla ndax ba ma nekkul député sax dama dëkk ci social ba ma nekkee député sama social dafa wàññeeku ba ma nekkee Amérique dama am dem ci église yi ñu may may yére xale yi yi boroom alal yi di joxe ma di ko def ci conteneur di fay neuf mille dollars muy ñëw ci dëkk bi may fay trois millions muy génn fii état joxuma ko kenn joxuma ko ba ma nekkee député ba léegi dafa nekkuma Amérique Mm-hmm. dama ni damay démissionné taxaw Sénégal yëpp di ma dégg ma wax ko ma demaat ba ci président Macky Sall ma waxaat ko ko mm-hmm. ci ci quatre-vingt-deux députés yëpp ma ne ko dama bëgg a démissionné ndax yaa ma fi andi te yaa ngi dem dama bëgg a dem mu ne moom du am mm-hmm. xanaa xamoon ne yaay sama député Coura Macky ah, barki yonent bi parce que dama bëgg di def social mais góor ñi li ñuy ñaan jigéen ñi ñaanuñu ko Sénégal sama téléphone twenty four hours góor ñi laay may waaye lu tax jigéen ñi bëgg a nangu ñafe lu tax ñun bëgg ñu dem dee gi naa am na ay jigéen ñi dugg ci gaali ñi ngi foode <laughs> oh no baaxatul immigré actuellement baaxut nañ dem New York gaa yaa nga ca mbedd may tëdd ñi amul mbokk demal Italie dañ ma dawalal ba Italie ni ma yow guddi dinañ la yóbbu nga xool mbedd mi ñu sàngoo carton dama doon jooy comme xale dama jékki-jékki rek yéyu ni lan moo lan moo dal sama doomu réew Sénégal moo ma gënal fu ne kilifa gi ma am fii moo ma gënal lu ne ba fu ma dem am na yoo xam ne bu ma ko bëggee def sax damay xalaat lan lañ may wax sama réew boobu sens lañu am am na ñeneen ñi duñ ko xalaat they don't care about them country seen yoon newul ci seen dëkk ñett yi bu ñu bëggee wax dañuy wax lu tax Sénégal bëgg a jël bii tànk di dem di dee ci géej gi Papis Okara ma fi kàcc kàcc lan moo ko naqari waa bëgg est-ce que demul moo nekkoon mais Ousmane Sonko mi ngi ci jàmm Ousmane Sonko fi mu nekk nii man daf ma metti dafa war a dem get the hellaara in prison dafa am doomu sénégalais yoo xam ni ñu ngi def erreur nekk ci kaso bi am ñu deful dara ñu tëj leen fii defuñu dara tuuma ñu ngi def ay at am ñu këf sa portable ñu ngi def ay at benn joint yamba ay at amuñu baat ay jigéen yu def erreur ñu ngi fii tribunal ñoo xam daf ñu dara mais ñu ngi ci biir kaso bi benn sénégalais taxawul benn opposition taxawul jooyal ñooñu mm-hmm. Ousmane Sonko who's Ousmane Sonko dafa ñëw Sénégal indil ñu beneen affaire bu bees indil ñu saaga indil ñu xaste indil ñu enregistré wane taatu jigéen weer sa morom ngay ànd moom di ko wax lu ñaaw soo duggee ci internet bi doo bëgg dara loolu la Ousmane Sonko ex Pastef indi ci réew mi mais lan moo tax mu def lu rëy mu def ci Sénégal ñu di ko jël muy fekk ñu di ko yóbbu fii di ko fi tëral Ousmane Sonko di président Ousmane Sonko def simple maire la maa ko gën a fort dara ci dëkk bi actuellement nii dama am kàddu Ousmane amul kàddu. kon oh, yow d'accord fu mu dañ koy euh, delloo prison. bu fekkee yaram dara dalu ko. mais mais fan yi communiqué bi génn. mais Moustapha ñooñu ñooy génnee seeni yëf di def waa waa ex-Pastef dañu aay ci manipulation ak victimiser wu euh, Moustapha Sy Moussa si Diène man gëmuma ko du sama sëriñ man papaam sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum mooy sama jàngalekat man taalibe sëriñ Babacar Sy laa papaay Moustapha Sy laa gëm du ma déglu kenn ku ne Sénégal di waaraate sama yoon sama maayin sama philosophie moo ëpp sa bos man sëñ Cheikh Tidiane si laay déglu almaxtum mooy sama jàngalekat man dafa wax benn wax boo xam ni man Moustapha Sy maa ko ko gën a xam mooy Ousmane Sonko lépp lu mu def fekk la manipulation bi bu duggee ci bàmmeel sax dina ko def Ousmane Sonko ci Sénégal defu ko Ousmane Sonko dafa ami njaboot Ousmane Sonko gis nga ñaari jabaram ay tut xale la ñu ndaw mm-hmm. Ousmane Sonko waxi barki dëmbam ba tey jii nii boo ko tegee dara du ci dëgg benn ngiwut lépp fekk la Ousmane Sonko taxaw na Casamance ni àddina bépp di ko seetaan mu malaise ci benn minute daanu ci poqotaanu ay dëmbuuj mu màgget moomu ma ne yow yàqu nga laa ko wax ay dem boo jëngi fi depuis mais du mais ci saa si lay wax maam jaar faam ak ñoom ay dem ndax lekk ngeen ci ceebu yoxos beeg paan yeeg crevette yeeg yooyu la Ousmane doon wax après marisam Ousmane dara dalu ko sénégalais yi nañu jóg ñu jooyal ñi nekk ci kaso bi nañu jooyal ñi nga xam ni def nañu ay erreur jigéen yi tata dogguma la mais euh, administration pénitentiaire ñoo bind communiqué ministre de la justice di ko xamal wér gu yaram Ousmane Sonko jamono ji moom dépassé na leen kon yow boo taxawee fii ni Ousmane Sonko. day feet dara dal ko tamit dina doon doy waar aussi. day feet dafa am sama benn xarit xam nga euh, euh, policier américain yi dañu aay nee na ma dañu jàpp si sama mag bu góor affaire immigration xam nga ñoom bu ñu lay fëgg si xam nga mën na leen lay fëgg si. 5 mm. heures du matin 6 heures mu wóor yaa ngi ci digg nelaw. nga naaw na ma ma nga ma fekk kura maa nga def yaramu neen ak ni ma toll nee na ñu ne immigration kura dama ubbi rek di xam-xam lu nee na ma rek daanu ne nii ñu laal laal ma aj sama nooy bi ñu ne ko même stop faking waaye stop fake yi ngay def jógal nee ma tëdd ba ci yàgg ma daal di xam ni comprendre ne damay fekk sénégalais dafa bari ñuy fekk sénégal xoolal addina bi seen moyen la doxal Ousmane Sonko mënul def man dara. ma dara dalu ko. administration lu. déggoo fi waxoon nag li ñu génnee man fu mu nekk nii sénégalais du ma ko déglu fu mu nekk nii man léegi damay dem ak sama maayin suñu waxee léegi damay teg wax bi déglu ko deux fois comme li ñu kàccal Ahmed Aïdara nii aw maag Ahmed Aïdara benn affaire mais li ko kooku waxal dara du ci dëgg. fan la euh, euh, Antoine Félix Diome di jëlee trois cent millions pour Sonko du ñëw géejawaay forward dégg naa génnaat na ni moom da doon wax rek dafa jaawale sénégalais yëpp gëm ko di yekk ay Aydara lu ne ay Aydara tamit gisagul dara parce que Ahmed Aydara li mu def Alioune Sall ak Macky sàll ci digg dëkk bi boo leen leen xale yi nuy laaj quatre cent mille yàq sama maayino xale xale yi senegal di leen wax ni pétrole bi bu génnee quatre cent mille ngeen ci war a am gat fa biit am nañ ci lopp lool ñun ñoo ko moom suñu yëf la xale yi dañuy tedd bu boobaa yal na balak jàmm te xam nga sénégalais làmmiñam baaxul pétrole bi ñu topp gaz pétrole gaz yal na ñu jikk yal na xoolal bañ ko dalee coow ba léegi xale yi di xabtalu rek di dugg ci biir géej gi di dee fawaat yegguñu pourtant ay seeni morom xam nañ ñu yegguñu mais ñu ngi dem ba tey il faut que si jóg ñaan tamit il faut ñu jóg tuural géej gi ñoom lébu yi ñu jógaat président Macky Sall jox leen ñu tuuralaat géej gi xaw ma géej gi mooy liñ ko tàmmal every year muy lekk nit il faut ñu téye xale yi ñu ngi garde géej gi mënul ne mais nañ ndëpp suñu cosaan la il faut am na lu def xale yi am na lu mu def ndax mënuma gis tey papito yi nii dee ñëpp xamoon nañ ko mais tey jii gaal bu taxawoon na ñu dugg te xam nañ dañuy deeyu kon du sago du sago. est-ce que tamit désespoir. non Sénégal a ngi neex yow Sénégal a ngi am jàmm buñ demee Amérique amerig amul jàmm boo amul kayit doo liggéey réglé yaru yes même bu jigéen di wax ak yow. oui madame yes sir oui monsieur loolu nga fay dégg. kon tata dañ ko war a bàyyi mu dellu si ay euh, njabootam non day dellu prison dañ ko condamné deux ans xanaa sénégalais yi man mi jàngu man jàngu mais xam naa ni ci loi man Coura Macky condamné nañ ma deux ans procureur génn taab juge bi <laughs> xam nga li li li américain yi ne ne nit ku ñuul boo waxee dix-huit day tëdd deux ans yi bu yaboo mu xam mu mais mu mu dee deelu sama yaay dafa dee sama papa dee ñeenti mag yu góor laa amoon ñëpp dee nañu ay jigéen rek laa am Ousmane bu dee wa wa lu sama yoon ah don't care and lot people don't care Ousmane dañ ko denc Sénégal melo mooy gisaat sama réew ni ñi ne ci jàmm di simaayal am na moment boo xam ne dama triste sama xol dee ma ne lu tax Sénégal di mel nii ñii xanaa gisuñu dëkku Afrique yi ñu mu def senegal man dama ko naw ci dëkku ci monde bi fu ma dem nii damay tiitaroo I am a Sénégalaise léeg damay jékki-jékki def lii di dox digg Amérique photo yi maa koy tey downtown wane kan laa doon fu ma dem damay bëgg a feeñ man yow man noonu yàlla bindee hi ma'am from West Africa Sénégal ne do you know him nga ne who's this ma ne la Macky this is my president he's the best president yeah can a picture with you may jaay sama dëkk it's a wonderful country you need to come check out di wax yi ñu an do you know Gorée Island di jaay sama réew saagawuma réew mi dama bëgg Sénégal nekk dëkk boo dëkk boo xam ne ñëpp dañuy daw si ñëw fii suñu koom-koom yokk ñu tiitaru torture tubaab yi fayu man bëgguma ñu dem may raxasal tubaab yi bool liggéey naa ko femme décembre di jooy guddee bëccëg xam ne dama bari jom barki salaatul faatih léeg-léeg ma puus sareyo bi sareyo bi daanu dal ci tànk bi mu day nii ma jooy ni maa bari jom njaay ak sama tuutiwaay mu jigi ñoom ñoo ma ne vraiment bëgg nga liggéey mais defe naa ni yow daal lii du sa liggéey. Mhm. waaye comme peut-être taa fan yii coowal DG bi. Mhm. Euh, coowal ñu ko war a réintégré waat ci liste yi dafa war a jël ay fiche de parrainage ginnaaw bi ko juge Sabassy fay joxee dëgg Sénat tamit jox ko dëgg euh, euh, waa DG na dee duñ jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am démb ki nga xam ne moom mooy ay dafi mandataire demat fa ñu rejeté waat ko taa yooyu coow lu bari ñu bëri ne euh, euh, euh, bu Sénégal taxaw na temb daal Ousmane du ci li loolu loo ci wax. waaw maa fi est-ce bu ma la waxaluloon nga dugg fii fi dugg. déedéet dama dugg Ousmane bokkul ci liste mais Sénégal nan dañu bëgg a rey nit ñi. mais ci liste bi duggul dañ ko condamné two years yóbbu ko kaso mënul dugg ci listu. présidentielle bi it's over this is it dañuy sonal seen bopp ñoom xam nañ ko opposition bi kani ak ñi jàng am xam-xam xam nañ ni dañuy wax coowal politique la te gaa yi comprendre ñu mais Ousmane du bokk du dem ci présidentielle yii ak bii nii. mais bu dee bu dee justice may bu dee dëgg nag. mais mënut a am dëgg mënoo nekk kaso di dem élection ah, mais magistrat bi ne Ziguinchor moo ko may mais kooku ci li ma dégg war ngeen ko dugal ak ak day dugg du benn war nga ak danga bokk dañ la war a dugal yow Fatima ci biir ensemble ak dugg nga du benn coow lay bari rek coowal politique la maa ngi commencé di comprendre politique léegi moo tax gisoo dootuma duma ci wax sax Ousmane Sonko he's a he's going to prison he's in there right now fa mu tëdd buy saw dañ koy surveiller buy lekk dañ koy xool buy naan dañ koy xool Ousmane Sonko kaso la ne mais fa mu nekk ma neexul dafa war a dem ca nawlem yee def ay ndombikam am ñoo xam ne defuñu dara na am ngor. mais yow tey Ousmane Sonko nee nga dara dal ko léegi lu tax ñu bàyyi ko booba mais mooy fekk Ousmane Sonko ci fekk lay dee. bés bi mu fekk nag rey boppam fekk rek dara jotul Ousmane dara jotu ko dafa bëgg a def ni Pape Alé Niang barki salaatul fatiha ajjuma la ne dafa bëgg def ni Pape Alé Niang xam nga Pape Alé yàlla weer na ko mu wax ni dama doon fekk di woo sëriñam ñii yàlla moo leen moodi kës la ko américain yi di wax yàlla def leen kës mais tey plan B bi ñu dégg Guy Marius Sagna tiitalu leen ndax ku ne xam na ne am na électorat itam ci réew mi moom Ousmane Sonko tey bu tegee Guy Marius Sagna est-ce que tey indi benn. guy gi kenn mënalul dara man rek ko mënal dara sénégalais nawu na ko bandi la soxore na biir Dakar biir Dakar dugg ko kacapan la doole ji bari na robel la dëggal na boppam tekkiwul ñaari salaamaaleykum ma nga ne wuti ñaar fukki million euro waaye dugub bi lay xaar seen fake money yooyu ñuy blanchir di dof dof lu di bëgg a rey sénégalais ñun dañu understand dañu yow yii ñuy def ñun dañu ko dundu kon yow jàpp nga ni daa xaar dugub du fi dugg mais bu dee bu dee diaspora bi collecté itam <laughs> yow daal ko man ma liggéey sama xaalis man war ko indi Sénégal gi dix mille dollars lañ la may mu dugg fi cinq millions sinon da ngay report lan fan nga jëlee xaalis bi en is normal banque bi boo fi dugal xaalis indi lux ba ëpp dañ lay laaj foo ko jëlee kan moo la ko jox dañ ma cotiser kan ak kan ak kan il faut que di xool lan moo fi dugg bu ñu bëggee sowe réew mi réew dafa am ñu fi dëkk di ko jaay dafa am ñuy dëkk ci réew di dundee deretu askan bi ci àddina bépp di jaay seeni valeur ex Pastef waxu bu ma nee opposition nag du ñëpp du ñëpp mais ex Pastef laa gis ci benn euh, euh, mouvement boo xam ni li ñu indi ci Sénégal kenn nawlawu gi Marius Sagna day sonnal boppam yaram wa bari na karaw Guy Marius Sagna ñun dinañu am président buy soli caraax munul sol fermé Guy Marius Sagna du sol lu baax bon na soxor na Barthélémy Dias su ko gën barke alxuraanu ka moo ko gën li may wax dëgg la mu réewuñu xool bi yéene na Sénégal bari na ay ay show Barthélémy maa ngi moom a yem show bi spectacle bi nit ñi bëggee. mais est-ce que tey taay lu mu neexawul ak ñoom itam. ndax ah non non non yàgg naa ko. ñu euh, euh, ñu defee woon nii contre pouvoir mais léegi nii lañ def ba temps yi passé gis nañ sax wala dégg nañ xeex diggante Abass Fall ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Dolly. waa Abbas Fall ak eh, Bara Dolly ba nuy xeex man nekkuma foon dama ñëw ñu ma koy nettali yow lu neexee noonu moo ko fekkee woon yow samay noon di xeex <laughs> ah ma ko moo tax man publicité wu ko de dama kontaan ba ma ko déggee xam nga lu tax eh, dëgg gi mooy ñëw feeñ dëgg gi mooy feeñ fu mu nekk ni budget bépp lu jàll mais des na budget bu mag bi foofu nag la génn di wax askan wi lu nu gëmut mais fii mi ñu ngi mel ni ay xaram yar waaw ah, tey Amadou Ba nekk seen candidat li mu war a présenté pour 2024 euh, ñu bëri na du jàll ndax dëkk bi métti na maanaam nit ñi dañoo bëgg a changé Amadou Ba continue ci la wax te gis nañ ñenn ñi nga xamante ne ñoom nekkoon biir Benno Bokk Yaakaar euh, euh, ñu ngi ñu ngi ci kawam est-ce que dina yomb ci yéen ah non Benno Bokk Yaakaar gisuma léegi nii ci jamono bi ñu toll kenn ku contre notre candidat mais am na su ñoo xamante ne dañ Euh, ànd nañ mais suuf. nee naa la lu ko rawoon li américain yi di wax lu ko rawoon. ay ñaan yoon ñu ngi seen kaw. Euh, maam booy jaaw itam gis ngeen. te xam nga ni ku ne xam ne dooloo mooy booloo mooy doole bu ñoom defee nii rek est-ce que dina baax ci Benno Bokk Yaakaar. Aly Ngouille Ndiaye euh, du ma wax ni dafa bon mais pareegul. Ali pareegul pour doon président xale Sénégal pareeguñu pour jox Ali Nguy Njaay réew mi maam booy jaawoo dafa fo intéressé wu ma man bugguma wor maam booy Diao kenn xamu ko woon bu amee expérience am nañu ko ko ëpp boo jàngee am na ku la gën a jàng sooy jaay diplôme bu xaay am na ku la ko gën a xaayle mm-hmm. Macky Sall jël ko teg ko ci béréb ñaar yim ko fal yépp wutukaayu alal la maam booy jaawoo ñaata moo doon salaire ak maam booy jaaw fu mu jëlee xaalis bu muy tëb di dal dégg naa deux mille euh, deux la dugg kon maa ngi moom a duggandoor ci parti bi deux mille la la défendre président Macky Sall mm-hmm. kon maa ngi ci parti bi maam booy jaawoo tekkiwul ñaari salaamaaleykum gisuma ku mu dimbali ay jigéen moom mën na leen a dimbali moom jigéen <laughs> waaw te da dangay rafet xees njool sa ndigg dagg maam booy jaawa li mu nekk ci dëkk bi ñépp xam nañ ko nañu bàyyi Sénégal bu nuy fooye mënuñu ànd ak Macky Sall mu def ay at nga tey bëgg Sénégal ah ci nga bokk nag ca liggéey ba lu tax doo apprécier yow nga liggéey Aly Ngouille Ndiaye liggéey na moom ci Macky la ne woon ñoo ànd liggéey ko waaye léegi lu tax ngay ñëw bëgg a xasaat loo fa nga jóge sénégalais yi duñ la gëm Amadou Ba am na personnalité soo leen tegee ñi ma tuddal fii yëpp ñu war a nekk candidat soo tegee Amadou Ba Amadou Ba ngay jël ci personnalité réglé calm down personnalité bi ma mën la présenter ci àddina warangal képp bi sa nite mm-hmm. Euh, Sénégal coowul politique day am mais buñ demee ba ca dëgg ba dinañu xam kan moo ñu war a yoreel Sénégal li fi passé dafa paase mais ñii ba ñu fi toogee Sénégal am na yokkute like or no like fii laa juddoo ba ma fi jógee booba temps Sénégal ñi daan togg añ bariwul ñi dëkk Pikine pour ñu ñëw Dakar metti woon na ñu dem ba nga xamante ne ni Sénégal bu ñuy jooy dañu xiif ma ni yàlla bu mu dal mm-hmm. léegi boo ñàkkee dépense boo woowee Fatima wala nga woo Koura wala nga woo ma Ndiiri Njallu mën na la may deux mille francs yoo toggee bu njëkk ba am fi woon dañ daan yekkalante nga koy fàttaliku bu ñu dem nag ba suñu dëkk tollu fii am benn nit bu ñëw indi benn système boo xam ni bu njëkk ba Sénégal ñi ma woo wax murit dara ba ñemee wax sëriñ Babacar borom kan bone kaare ba bay wax ci maam Abdou Aziz kenn amuloon fitam bay wax ci Baay Laay dañu amoon benn respect boo xam ne bu maam Abdou Moussey wax ñépp def ba ma gisee doomu maam Abdou Aziz bi nu ma tudd euh, Habib jour bi mu njëkkee wax bu ñu tëjee wal fajri nañu tëj télé yëpp wala na xale yi dem saccagere lépp dama jooy keroog nag laa jooy maam Abdou maam Abdou ba mu dee dama tiit di julli di ko ñaanal mais ba kii waxee dama jooy ma ne maam Abdou bu fi nekkoon tey xam naa ni man réew mi day dal mënuma gis doomam di wax nii mais bu ma gëstoo dégg Maodo di wax damay kontaan ku bëgg lu baax nekk doomu réew mii sa waajur nekk ci kilifa yu mag yi nga ni da nga bëgg sonko oh non da sa bopp te gisoo Macky Sall mu war la jox li mu la jox nga mer loolu di ko naqaral MC Niass wax na ma ko ni ma président Macky Sall dama ko mere mais Marème Faye merew ko ma ne ko waa wax ma ñaar yëpp mu ne ma Marème Faye dafa am xale bu feebar buñ ma wax ma fexe ba jot ko ba wax ko ko am ku ma yónni mu wax ko ko ci saa si ñu fajal ma xale bi ma kontaan lool mais ma Sall la daf ñu jox xaalis ñun ñu séddoo ko ku nekk am cent cinquante mille ma ne ko bàyyi bàyyi ña sa tool li noonu njaboot gee bari te mënu la jox macha allah. fa tabarakallah sëriñ si ñoom seen. waaw <laughs> non il faut ñu arrêté loolu. ay doomu kilifa. ki nekk yàlla teg ci réew mi ngeen di jàppale pour réew mi ñoŋ taalibe yi tas nañ. tey taalibe Alaaji Malick fu ñuy saaga Alaaji Malick lay may taalibe maam borom Touba fu ñuy saaga maam borom Touba day may kër bu ma bàyyi laay bàyyi ñas ñuy may ay kër suñu valeur yi dañ ko bëgg a ñàkk ndax Ousmane Sonko God biit Ousmane Sonko du génn kaso ñu ngi ci jàmm du bokk ci kattanu suñu borom bi du bokk te man xam naa ne du bokk na woowee Macky Sall papa na génn na ko papa baal ma bàyyi ko mu bokk daddy I'm sorry Mr President ma baal ko mbokk wala mu ne nii ci lalu hôpital bi Mr President man la Ousmane Sonko yi fitna yëpp maa ko fi may combat mortel may dinga ma rey mbaa ma rey la dinga jël sama bakkan bi tàggu naa sama papa yooyu yëpp dama doon sóob daddy am sorry bu subaa ma génne ko. yaa koy génne bi. man damay gitanaas génne ko. Ah, damay dem ne leen eh. baleen ko woowee ne ko mister président woowee ko daadi bàyyi leen ko ngir yàlla te ñu dem te ñu seen doom ya dee ñu sukkal leen raamal leen moom muy raam ma topp ci ginnaawam yor jekk njatu bàllu ñi ñëpp ak ne sama cagaat moo ma indi lii lépp na yaa bëgg mu avoué daal yow na avoué rek ma baal ko mu génn barki yonent bi Ousmane ni Macky Sall daa am soore I do everything ama toqa man maay waxkat bu mag bi baal ma mais su subaa waa Pastef nañ nañ jàpp boobu de buy suba ma koy bàyyi muy génn man ko maa tëj Ousmane. ah loolu de loolu de waa Bool maa ko tëj man maa ko tëj te waxoon naa ko naa la tëj you going to prison. ko tëjee. lam nañam laa faalaw ak tànk bi corruption mineur yow Sénégal est-ce que dégg nañ wax bi moo gën a métti viol mineur la ñu waxuñu benn mineur de. mineur di leen jaay doole ci sa tur di leen jaay ni dama xaalis di leen force di leen tëddee te du leen neex loolu lañ def Ousmane seen àddina bépp di ko dégg day fekk boo déggee li ñuy yekk Ousmane ci sunu mbokku africain yii am na benn kii bu ma dégg ñagi naan cagala <laughs> Ousmane ji cagala ma ne cagala kay caga bu mag la kenn yóbbu ko suite bote kenn boolewu kook aji saar mu xam na xamante nan bu yàgg avant Sweet Beauty moo aji déggoo aji ne kon boo rek lawul ma wax euh, euh, fii nu mu tuddati wakaam ajay ko wax mm. boo rek lawul yow sa yàq bi di ginnaawal metti waa xotti taat yu lu mu ci amee ki mante ki chocolat sénégalais xanaa la ñuy déggee tamit come mais bu ma bàyyi Ousmane Sonko ci di yàq sama dëkk ci lu ko neex bu doon politique ak man mais dañuy gittanaas ci politique mais yow nga dem def xale bi ni nga koy def xale bi yuuxu mouvement des femmes la xaw ma nu ñu tudd li ne ci Sénégal ñu ne nañu yóbbu nañ dugal Ousmane Sonko <laughs> ci ci ci présidentielle bi sem indem yéen ñi ànd ak jigéen ñi ne da ngeen di dimbale jigéen ñi mm-hmm. dama rus pour yéen mm-hmm. bépp jigéen rus na ngeen di laaj pour Ousmane Sonko dem ci demut te maa ngi seen kaw la leen Abdou Nguer wax guerre laa leen déclaré man Coura Macky te sama guerre ak yéen du yomb dama leen di def dóom fay. les souteneurs Adji Sarr. non du ñooñu. ñii ñooy euh, dañu def benn mouvement ne dañuy jàppale jigéen ñi am problème mais dañu tourné ne nañu dugal Ousmane Sonko pour mu dem nekk président yan façon jigéen a nekk noonu yan xeetu jigéen a nekk noonu. lu tax boo nee Afrique ñu ne jigéen a fa gën a sonn ñoo ngi ci cancer bi lu tax duñ ko waxtaanee jigéen ñaa ngi am cancer feneen ak feneen mu metti ñu ciy dee ñii seen jëkkër yi bu ñu xasee ba xam ni kii ween bi dagg na pare nañ ci yow bàyyi nañ la fa nga gaaw a dee xeexuñu loolu mm-hmm. Ousmane Sonko is not nothing. Mm-hmm. nañu xërtëgal violence bi duñ ci moom duñ ci wax mm-hmm.